entretien oto ndax oto bi boo mun na manqué huile frein yi mun na mun na huile frein bi mun na manqué te yow nga war a daw longue distance donc boo war a daw longue distance day baax nga def entretien sa oto mooy première mesure bi consigne bi nga xam ne moom la ñuy fàttali képp koo xam ne dafa yor oto bëgg a màggali ñu ngi lay ñaan nga def sa révision oto sa entretien parce que fii ak ñuy gën di dem station yi ñuy defee entretien yi day xat kon moment bi képp ku yor oto war a màggali na ko dem defi ndax mooy premier consigne. Euh, prési am na tamit li nga xamante moom moo nekk rappel ci mbiru pono yi tout à l'heure nga ci est que mën nga ñu cee gën a leeralaat lan moo tax ren jii ngeen insister ci pono yi. waaw ren dañuy insister ci pono yi parce que d'abord ci nawet lañu nekk xamuñu ndax euh, euh, fii ak màggal nawet bi na arrêté la déet comme maîtriser wuñu taw bi mun nga ñuy màggali muy taw ndax yàlla rek xam kon pono yi moom mooy tax boo bu baaxee mooy tax boo freiné a taxaw fii Sénégal gars yi duñ ko farataal sensibilisation boo seet lu ci ëpp ci leneen la ñuy wax waaye pneu daf ci am solo ci wàllum oto ndax pneu yi bu baaxee boo freiné oto yi day taxaw donc bu pneu yi baaxul bu demee ba usé dafa am durée de vie say pneu ndax pneu daa am durée de vie daa am moment boo xam ne bu ci yeggee pneu yi baaxatul da nga ko war a changé ñaareel bi moo dañ nekk période nawet nawet moom ñëpp xam nañ ni bu tawee chaussée bi day glissant maanaam day tax kon say pneu foofu mu baax pourquoi ñu insisté ci pneu yi mooy pneu aussi du n'importe quel pneu ngay jël rek monté ko dafa am pneu yu adapté ak ci oto bu ci nekk dafa am ay pneu yu ci dem. mais président naka la ñuy yi dafa am ay marques yu ci nekk dafa am dure dafa am ay ay ay références ci références yi ngay xool bu ci nekk dinañ la wax référence bi ak nu muy demee essieu bu ci nekk ak oto bu ci nekk dafa am pneu yoo xam ne moo ci adapté wu donc ñun ñu ngi insisté ñi war a dem ñu xoolaat pneu yi bu fekkee pneu yi dem nañ ba crampon yi jeex da xam ne pneu mënatul dem nga changé ko nga xoolaat ci durée de vie bi waaw ñun amuñu habitude boobu te il faut ñu koy def di changé pneu donte pneu yi am nañu cher waaye il faut ñu koy changé parce que day permettre nga nga sécuriser sa oto day permettre nga sauver ay vie parce que accident bu amee ci yow mu nekk négligence en général loolu ñun ñu koy déplorer. ren dafa am li nga xamante moom moo fi bees mu nekk Covid 19 bi nekk mbir boo xamante ne ñëpp xam nañu ko lëmbee na adduna bi yëpp. déjà ma leen di ñaan pour ñu respecter li nga xamante moom moo nekk distanciation yi si toogaay bi ak taxawaay gi euh, prési lan moo nekk euh, euh, mesures yi nga xamante ni également ñoom ngay xelal askan wi xelal ko ñi nga xamante ñoom lañ fekk fii ci Baux Maraîchers. waaw fàttali rek que xeex bi tey lay doog ko commencé heure bi heure l'heure grave bi président waxoon njëlbeen moment bi la heure bi grave ndax moment bi bàyyi nañ lépp nit ñi jàpp nañ ni yëf yi daanaka saye alors que moment bi bu fekkee benn nit am na corona ci àdduna bi moo xam Amérique wala fenn benn sénégalais mën na ko jël foofu indiwaat ko fi mu tasaat kon corona ba léegi risque baa ngi fi waxatuma nag bii Sénégal am na ñu ko am tey am na ñoo xam ne du ñu wane symptôme ñu jëm ci événement yoo xam ne dajaloo day bëri kon bu ñu jëlul mesure bu ñu teewul sensibiliser nit ñi ci état de conscience ñu xam ni xeex bi mu ngi doog door ku ci nekk gën a fagaru na nga daan def ci début bi tey nga ko war a gën a def. képp ku yor famille chef de famille muy borom kër da koy commencé sa njaboot ndax ñiy génn ci mbedd bi dem Touba dem feneen ci kër lañ jóge donc ku ci nekk sa responsabilité personnel ak individuelle mooy nga fexe ba sa waa kër ñu sol masque di utiliser gel di respecter distanciation sociale bu ñu dugg ci bus wala fenn bu ñu xaar police wala gendarmerie wala ministre bi wax loo xamee sa sécurité bopp la dangay aar sa bopp aar sa sa sa askan loolu waroo xaar la ci soññ mais soññee du ma du du ñàkk moo tax ñu ne nañu insisté ci loolu. xamal ni ñun en tout cas pour suñu association bi ñu ngi jëm si ñaari événement soit dañ ciy jëm ñu respecté yëf yi mbir mi jaaree foofu bàyyi mun nañ fa dem am ñu ko fa indi tasaare ko fu bu boobaa Sénégal yëpp koy am risque boobu nag moo tax ñu ne ñun ren dañ ciy insister donte dañ ci wet waaye dañ ko wax ba ñëpp dégguñu ñu naan ci ànd nag ak association yi parce que ñu wax rôle et responsabilité des associations moo xam ASC la moo xam euh, association mouvement la bu ci nekk tey ñoom ñi nga xam ne ay ay ay kuréel la yu manque ay doomu aadama dañ ci war a jàllale message bi xam ne moment bi nii la war a gën a fagaroo moment bi nii la ñu war a gën a taxaw ci xeex moment bi la ñu war a gën a sol suñu masque bu ñu bàyyeeku waaw fagaroo gën faju moo tax ñu ne dañuy impliqué ñuy remercier amicale des éducateurs encadrés de Hann Bel-Air ñoo xam ne ci xeex boobu ñoom de taxaw nañ ci thème arrêté entraînement yi kon ne sensibilisation bi ñu ànd ak ñoom ci liggéey bi aussi waaw parce que tey képp koo mën sénégalais yor association wala structure liggéey bi da nga ci war a sumb ñu leen di remercier seen taxawaay di fàttali aussi réseaux sociaux yi ak médias yi taxawaay bi ñu ci amoon déglu boo seetloo waxatuñ ci léegi Covid te moment bii dañu war a relancer at ndax dañoo jëm ci ñaari événement yi mag mooy màggal ak gàmm te nit ñi dañuy jógee fu ne ci àdduna bi bu boobaa nag taxawaay boobu da ci war a am nañ ci taxaw tem ñu ci waat képp ku ñuy dégg képp koo xam ne suñu mbokk la wala suñu wëlëre ci entreprise yi bu ñu bàyyee bu ñu ah, commencé di dajaloo commencé di def ndax njënte yi ak euh, soirée yi ak lépp gars yi commencé aat nañ te bu boobaa foofu nag lay jaare mun a law kim ñun suñu dëkk yi amuñu doole dañuy fexe taxawaay taxawaayu xeex ko mooy respecter les mesures barrières par rapport à cela. voilà merci beaucoup may fàttali tey 24 septembre